bu ngeen fay qua Hàn Qua trước đấy Ê Đi dạy Đại nhân Mà năm đại nhất Ê Qua Hàn làm nữa con nhìn phim đêm kia là ừ. lành <laughs> nhỉ nhìn nó có thằng bày này lên avenue de Yoff woote si bayaalam njëw bii le huit ak le ah, bi bàyyi na leen fi. ñun si boppam moo leen fi xam nga la la am na cas am na is. waaw waaw.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 kenn du yàqal kenn lu waay na naka def sañse bu dul sañse nag ay yére olof doo nga nag laa fa soxla waaye demal waay yéen a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 ma waay yow mi salminimon o jolfo mi salminimon on jaarama mais di dimbali ñu dëjul booy dëju ñun day sonn na Seydou waxalaa waay gis naa law kenn xamul la la jot nii wala wul waxtatu nii rek daxala mën a toog toog mu laa toogu jàll fële soof naal torop mi salminimon de min ko woni ko pullo eyi pullo tus min ngari hoddo ngari tus place de njowo njowo tus oto haalatom honnode billaay kii xanaa dafa dof mi nga rek mooy kii xanaa dafa dof jaaj bu defee kii daanu ah lii lii kenn lii gëmloo du ko def ñëw a jëli su ko ba sa kanam mel ni la ah, la daa eh, la de ah man laa saaga wala jaaj la ngari la noogo yi tax mi ne noof la wax la noogo la noogo ngari en noom foof yoof baaba neene

Mangga alamat. Ankon au alamat pindah. Mangga lu nama Makan lah. Nama kedon lah kedek. Waaye nag uyu ma du yàgg dara ma jël ko. daa war a jël du yàgg dara. lii moo tax ma gën a indi fan yee néew ma jël ko du amam ñaare ndax kële cuuraayam jëg damay gis na ma la wax la bi. dina man di ma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

altine ngoogu nag altine Seydou altine nañ la de altine nañ la de. waaw ba ma defati waay Seydou. ah ki la altine ngi nga di ma doo. sa ginnaaw waaw yow. man na ma ne aw la man xamoon na ma ne aw la di waaye na ma ne aw la. Seydou dee nga naan xitaatal ah ngay dee waay ah ngay dee waay man xamoon na ma ne mooma naka njëkk yii ah. dama noroon noroon rek waaye xamoon na ma ne moom la. a ah, oh, ndaxa sugal yakana a ah. waaye kii la xam mi teewaay lu ma metti li ngay wax yëpp mu ngi ne mu ngi sama nopp mu ngi sama biiram nopp ma takkal wëj jaman tey waaye ma mbar ma ngay waaw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 bolé ya ba dara setu fa yow nga deju fi amo lu la doy yow akay kay xamna lan la man dal fi ma jitt fi ma préparer bala xoci xoocaax def pan yu am doxa ci lama ma o oh, na ma këram nga toj jaañ man jaañ dalu la de jaañ nga ci si ki gi dalu la de man moo yoo néew si diggante jëkkër ak jamm mo yo néew ma daw ñew mu andi ma ci grand place bi mané xam xaama për vidéo ji na audition bala nga yeewu gisulal pan bi ma la xoojal defal ci kër di pour bàyyi yow rek xocc say kon loolu man nga ko fi tegal noonu. xam nga lan laa bëgg wax ji dafa doy. kër ga bu ma la fa jiitu yow billaay yaa ñàkk jom. encore eh. encore Seydou dinaa ya di encore yow di nga dee de Seydou. comment dire ba dul dee saw yoon nekku si. mais saf. saw yoon nekku si. yan daxaa soppaku ni kàkkata. mbaya boo naa soppaku moo yoon newu si yow ya, xam nga ne kii li mu. demal. jañ waaw yow la daal de. man dama ko tàmm. waaw baax na. xanaan nii waaw dal faa awee dem wala li ma ko wax xanaa gis naa man nee na ma ko man kenn du ma yaakaar ci ma yàq ma la mu ñëw fii nan man ah yow man na tabee maa ngi man nag gis naa ba ñàkkee fula say na tey téyew ma fi mënu ma laa jox ab dépense bëgg laa war a na. Seydi yow mën naa la waat si ne lii nga ko man.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 ay Seydou yow waay dimbali ma yaa ma ko mayoon sa daal palla fuuta yi dafa am naa waay dimbali ma ah, mën fële waay waaw ah, mën a buuba dox sa caay ji xam naa ne verte verte mere na la xam naa ne verte baxa mere na la saay-saay biw doon dafa am laa wax waaw ah, mën naa la soli peew ba saw taat déformé wu ñëw bëgg a maayo fële waay Thank you.